asalaamaaleykum bokk jullit yi sasana bokk taalibe yi bu gën seetaanee jataay bi xam ne ñoo ngi jëm ci événement bu rëy muy fàttaliku kuréelu julli géej gi bi ñuy def le 21 septembre ca place Diamalaye loolu lépp nag gannaaw bon jotee ñaanu Serigne Mountakha Mbacké xaru général murit mu jaar ca jàmbaar ja sëñ am di Modou Mbenda wàcc ci taalibe yi waaye ñëw ba ci nag jàmbaar yi nga xam ne tubarkalla ñoo ŋànk yoon wi ñu ngi siyaare bu baax sëñ Bassirou Mbacké mu Cheikh Abdou Khadre porte parole waa ñoo ngi siyaare bu baax a baax a baax Alaaji Mbacké fii xam ngeen fii ni toog mooy grande mosquée kul Jinaan fii la Alaaji Baara ñëwoon fii la Cheikh Sidi Mokhtar ñëwoon waaye fii la sëñ Mountakha bu woon jotaay bëri boobu adduna bépp fekk fi tey Massalikul Jinaan ngi nii tey nag ñoo am mbégte dajale fi ay jàmbaar yoo xam ne ci yoon wi xam nañ leen ci xam-xam ak ci waxtaane sëriñ bi ñoo ngi siyaare bu baax nag sëriñ Youssou Diop ak mboolem fiis bu nekk ci biir mi ak bitim réew ci seen taxawaay ci liggéey bi di siyaare seen Lamine Diouf waa ajar soodu xuma ñi ngi ñaan nga yàgg fi lool tan ak wér li li li soxna may bintu eh, xaadimu sa loxo ndek man maa jiitu ajarat soodu xuma top sama gannaaw waaye nag mboolem fédération daayira maam jaay ne ci biir réew mi bitim réew ñi ngi bàyyi xel jataay bi ak bés bu rëy boobu loolu nag kañ lay doon le 20 ak le 21 septembre fii ci jàmmalaay ñu ngi ñaan yàlla yóbbu nu ci ak jàmm eh, bala maa sori nag xam ngeen li maa ngi toog ak ay borom xam-xam kii may jëkk jox nag mooy Serigne Saliou Samb mi ñëpp xam tabarkàlla Serigne Saliou wax nu tuuti rek ci événement bu rëy bu xam ne Serigne Touba defoon na ko ci julli géej gi ñu soog a di soit ci des aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah sayidina muhammadin wa ala alihi wa ashaabihi wa man tabiahum bi ixsaanin ila yowmi ddiini wa radiallahu an seyxina ahmadul qadim wa ala qudwatina al azim maam cheikh ibrahima fall babul muridin barkeb cheikh abdul karim mbakke faddilu noo ngi sant yàlla di julli ci sayidina muhammad di feddali suñu kóolute cheikhul xadim di balu xaq bokk yëpp di leen baal waaye di ñaan yàlla boole nu jéggal di ñaanal sunu sang cheikh muhammadul muntaxa yàlla sama boroom yàggal ko fi lool te mu ci barke Seexna Ahmadul Xaddim Baye Ibra noo ngi lay ziyaara bu baax a baax di ziyaara mboolem sunu kilifa yi fi nekk sunu woy jur sëñ Modou Mbaye sàmb di ziyaara Cheikh Ahmadou Bamba Mbuub sëñ Lamine Diouf euh, di ziyaara bu baax sëñ Abdoulaye Diop mu baax mi ñu làngool waaye di ziyaara sëñ Mamor Mbaye sëñ Abdoul Ahad Samb euh, Baye Mbaye Ndiaye Sannoosi Baye Moussa Bane ak waa Masalikul Jinaan yëpp ñu ngi leen di ziyaara di zibeeral ziyaar sëñ Lamine juuf ah sëñ Mame Balla Gningue ñu ngi jaare ñëpp baay may sa sëy sëñ Modou Guèye Mazalik ñëpp rek ñoo ngi leen di nuyu di leen bëggee bu baax a baax di nuyu soxna yi bu baax a baax xam naa moo ko tegee ci loxol soxna Bintu Ndooy xaqul yàqin dana ko jàllale ci ñoom waaye di ziara nag bu baax a baax alaaji Mbàkke yu fay sunu way jur sunu jëwriñ ni nga ko waxee mii nga xam moom la Serigne Touba teg fii mu yor fi kàddoom di ñaan yàlla mu guddal fanam te wéral ko ci barki Seexna Ahmadul Xadim waaye di nuyu soxna Soda Xuma bu baax a baax di ko ñaanal yàlla bis bi bis bu historique la am xorom la lool nit mus la gis ku ko def ci àdduna waxuma niveau bi sëñ bi toll def ko waaye li ko yàlla jaral mu def ko waaw waxuma niveau bi parce que niveau bi yëfi boppam la waaye li ko yàlla jaral mu def digalu yàlla wax naa ko ma ne jëf ndigalu yàlla moo jaraloon sëñ Tuubaa mel ni kuy xaru parce que baaxawuñu woon gis doomu adama mu wàcc ci ndox ne gaal bàyyi koo ci gaal wàcc woon gis doomu aadama mu def ko bi mu jógee di ko def tubaab bi moom ci xelam mu gàtt moom nasaraan bi lim gëm mooy kii moom day xaru waaw ku jëf ndigalu yàlla jaral mel ni kuy xaru nag sab bi warta sàggane ndigalu yàlla benn ñaar li mu wax sëñ Moulay Bousso loolu lu jar a bàyyi xel la waaw ah, Mawlaay damaa xam ne ndox mi mbindeefum sans borom la may mbindeefum fum borom nu bokk kenn ku nu bind ki nu bind sant ma li may waaj a def te bu ko santul mu lor ma du ma lor ku dégg ku dégg ci sa nopp yàlla bu santul ndox mi mu lor ma du ma lor rek sa ruu moo koy nangu waaye nekkuloo fa nag du sa yëf nekkul sa raisonnement wu bopp moo tax kenn du wàcc ci ndox mi baat bi nag ku ko dégg rek sa ruu nangu ko parce xam nga ni yàlla bu santul ndox mi mu lor ko du la lor mais du sa raisonnement wu bopp borom raisonnement bi mooy ahmadul mbakki yu moom moom raisonnement wu boppam la mu raisonné ci biiram ni yàlla santul ndox mi mu lor ma du ma lor mu yàqin ci biiram mu wàcc ci ndox mi moo tax yàlla def ndox mi ni xeer parce que moom moom raisonnement bi loolu nag mooy dox di dox di dox di dox ba 1995 Cheikh Mouhamadou Mountakha mii moo ko initié woon soxna may Maymunatu bintu Xaadimu Rasul dëkk foofa ca angle ba ca école Dior wax ni ku ko jiite ku jiite jigéen yi ñu ni ko soxna soo doxuma mu ni maa jiitu nga topp ci soxna may Maymunatu moo wax ci làmmiñam ni waxtaane naa ko sëñ Abdul Xaadir Mbàkke ni ko man de damaa gisul lu gën a xoromu ci yoon wi julli gi sëriñ bi julli ci géej gi te dégguma fenn ñu màggal ko ndekk da booba yàlla sëñ Muntaxa la koy roof yàlla na fi yàgg te ñu dem ca Cheikh Saalihu mu wax ne su ma ba ñu toon adduna ŋàbb ma maa ngi ñëw jiital ko sama bopp waaye danaa leen yebalal sëñ Mourtala at mu njëkk ma sëñ Sall ambassadeur moo ko moo moo ko moo ko jiite bàyyi sàmbay waxtaan ko sëñ Moustapha Lo synthèse ko 1995 ba tey ñuy màggal màggal gi muy xëy di yokk ndax sëñ tubaa amul tànk ginnaaw waaye fàttaliku gi da am solo ndax màggal gu nekk murid yi mën nañ koo woote nit woote événement bu ni roog loolu waaye tey la ñuy fàttaliku julli gi Serigne Touba julli woon ci ndox mi moom doo dégg keneen ku ko màggal ku dul murid yi kenn mas a kabar ci kaw ndox mi jaamu yàlla delluwaat ci ci gaal gi loolu musul am kabar ca douche ya delluwaat ca gaal ga goree la tee rey noonu ya diigal gaal ga borom tubaa rek ñu koy màggale fii nag ci jàmmalaay waa Joof waa Cité Jili Mbay waa Jàmmalaay di ko def ni nañuy dalale gan ya Touba waa Aslem Grand Médine booleem tund woowu Parcelles Assainies entre Parcelles Assainies ak Yoof li wër foofu bu dellu see dañuy mel ni Touba la ñu nekk nit ñi di ñëw di wàcc ci ñoom kon ñoo ngi leen ciy fàttaliku te leen koy fàttali ma wax ni kàddu yi xam naa bu fekkee sëñ lay ñëw na ak sëñ Mamor ak sëñ Mourtala ak sëñ Mourtala Samb ak ñu koy waxati ak sëñ Abdou Lahad Samb ak sëñ sëñ Cheikh Amadou Bamba Mbuub bu ñëwee li ci waroon a mottali ko dinañ ko mottali noo ngi sant di gërëm di ñaan yàlla yàlla nañ ko fekke déwén ci barke borom Touba wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ngeen baal ma jërëjëf sëñ Abdou Lahad Samb jërëjëf sëriñ Saliou Samb sëñ Abdou Lahad yow laa jox kàddu gi yow it ñu kii def na nga tënk rek ndax xam nga ne événement bi day événement boo xam ne ren sëñ Mountakha da ci da ci jël mesure spéciale maanaam nee na ku féete ndakaaru taalibe na nga ñëw ànd ak liggéey bi su ajaru soo doxuma waa Hizbut Tarqiyyah waaye nag ci njiital mooy représentant xalif général Ndakaaru la ko waaye ñu ngi ciy woo wax naa ko léegi le maire des parcelles de Séni Jamil Sane mooy dalal gan ñi ak mboolem ku dëkk parcelle Sëñ Laat Samb yow laa jox kàddu gi ko defee rek tubaarkàlla wet nga barkeel nu sëñ Saliou Samb defee rek ma soog a ñëw ci Mamor parce que ma ko bëgg a laaj yoo waaye moo xëy da ko xam. alif laam miim allahu laa ilaaha illaa huwa hayyul qayyuum fa aslix lisaani kulluhu wala takkilni ilaa nafsi tarfatal ayni ginnaaw bi ñaanee a cheikh mahamadul muntaxa al xalifatul am li tariqati aw li taifatil muridi ay dawla wa nasara xaafisawullah wara yàlla na fi yàgg lool te mu ànd ak wér ak mboolem njabatuk sëriñ tubaa gépp li ko tàmbale ci sëriñ Sidi Mbàkke mu Cheikh Abdoulaat ba ci ki ci mujj noonu lañ koy ñaanale mboolem njabootu maam Cheikh gépp sëriñ Amdi moom sëriñ Modou Mbenda ak mbooleem njabootug maam Cheikh Ibra Fall gépp ñu yàgg fi tànd ak wér di nuyu ba yu fay mii fi nekkal sëriñ bi ci ndakaaru ak ko wër di suñu waajur yi ñu bokkal plateau bi ak boroom xam-xam yi di nuyu bu baax kilifa yi ak seex yi ak mboolem soxna yi di jiital ci nuyu bi nag suñu waajur Baye Modou mbay Samb mii toog di nuyu Cheikh Ahmad Bamba Mbuub borom xam-xam bu rafet noonu it la ñu nuyu sëriñ Abdoulaye Diop Bichri di borom xam-xam bu rafet ak sëriñ Mamour mbaay di borom xam-xam bu rafet di nuyu bu baax sëñ Ibra Cuun mi ñu jox kàddu gi wax ji du gudd dañuy wax rek li tax julli gi ñu war koo fàttaliku ndax alxuraan moo ñu sant ne inna salaata kaanat al muminina kitaaban mawquuta julli day farata juñ utal waxtu te it yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax ni afdalu ahmaal yi asalaatu fi waxtiha yonent bi gën ñëpp suñ borom tag ko ci ji koy wuute wax ak moom ci mu yaa ayyuhal mudassir qum fanzir wa rabbuka fakabbir wa siyaabaka fatahir wa rujza fahjur wala tam nun tastaksir wali rabbika fasbir fa iza nuqri fa iza nuqira fi naquur fa zalika yawma izin yawmal asir ba nam jeexee moo wax ne jëf ji gën jëf yi mooy julli ci waxtoom te it moom la nu yàlla royloo moo ne laxat kaana lakum fi rasulillahi xuswatan asana kooku bu ne afdalu ahmali asalaatu fi waxtiha waxtu julli jot sëriñ bi jugee mbake Baari Jolof génn Touba ñent fan fukk fan juróom-ñett mu génn Mbàkke jaar Baari Jolof jaar Louga jaar Jeewal ñëw Ndar jóge fa ñëw ndakaaru toog fi diir bi mu fi toog war fee jóge jaar ci océan atlantique bi jëm ci yoonu géej gi waxtu julli fekk ko fi nam daan jullee dara du ko ci yokk wala moo ko wàññi ko ci moo tax bi mu ko waxee sëriñ bu Bousso bind ko sëriñ Tuubaa wax ne wa fil yammi salal asri yajri bi jildihi maa fulkihi yabdu raaken xayra saajidi Ba Ibra léeg-léeg nga dégg sax waykat yi wax ni mam Bamba kàbbar géej bato bay daw der ba topp ca dem dañoo juum sëriñ bamba du topp ci ginnaaw kenn ku dul yàlla ak rasulullah dañoo waroon wax ne maam bamba kàbbar géej der ba di dem bata ba topp ci ginaaw wala mu maas ak moom musta topp ci ginnaaw kenn ku dul yàlla ak rasulullah alayhi salatu ndax moo ne ujadidul shariatul mutahara inchaa wal aqatul munawara lii rek la fi nekkee yeesal sharia ak aqa waaye bi mu jëlee deram sànni ko ci biir géej gi moo wax li tax nit ñi mën a xam julli gi kañ la wax na ni ginnaaw tàkkusaan la fa julli julli gi ak tisbaar léeg-léeg ñii ne tisbaar lañ julli sëñ bi julli ñii ne takkusaan sëriñ bi dafa julli tisbaar julli takkusaan bu ci nekk daf koo def sunna comme lan bu ci nekk dafa wàññi julli loolu ma taleeral bu ci nekk ñaar rakk la julli dafa wàññi julli loolu tax mu doon ñeenti rakk moo tax mu ne wa fil yam mi sallal hasri yajri bi jildihi maa fulkihi yabdu raakan xayra saajidi ci biir géej tàkkusaan a mujj mu ne ci laa julli waxtu tàkkusaan waaye su ma su jootee wala may rukon mboolem ko suñ borom sàkk nga nekk ci biir géej gi nga jug di ma màggal ngir màggal gi may màggal yàlla ak rasulullah da koo bind dafa ne kabbartu takbiiran nafal hidaaya wa xaadili bihi moo nil hidaaya nen ma ahmadul xadim saa yi mu ne bërik ba ne allahu akbar lu yàlla sàkk danga may màggal ci biir géej ngir màggal gi may màggal yàlla ak rasulullah su ma jàppee sama wala ma jël sama dënn dë bopp bi teg ko ci kaw géej gi nee na lu yàlla sàkk danga may màggal ngir sujjóot gi may sujjóot wala may rukon waaye kat yàlla dàq na iblis mii noonu lislaam di sama noon di noonu yonente bi ak mboolem noonu koy wax ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu laa sharika lah waaye xëccal ma ay hidaaya ak muy ay kado bes boobee nag moo tombeek le 20 ak le 21 septembre fii ci julli géej gi muy place boo xam ne place bu place place historique la place bu historique la ndax ndigal la ma nga bàyyoon koon ci sëriñ Saliou Mbacké jàmbaar ja yal na yàlla yokk leeram taas ci barkeem mu joxoon ko Cheikh Modou Mountakha nam ko waxee ñu jàppoon 1895 1895 ci at mu njëkk ma ngir lan téeméeri at yi ngir ñu mën koo def la ko jiitu waaye bañ ko jàppee mu ne lii kat ginnaaw li ngeen ci jàng ci alquran mi nga xam ni moo gën ludul moom ngeen jàng ci ay xasaay def ci ay salaatu ala nabi ak mat rasul yi mën ngeen koo wéyalee lii kenn du ko yëkkati muy laal suuf kon wéyal leen ko ndax lu baax kenn du ko dog mën ngeen ko wéyale ndigal loolee mooy rot ba tey jii sunu waajur yi ajaratu soxna Soodu Xuma mii nga xam ne ñi fi jaar di Baye Baba gay Baye Alioune Badara Cissé ak ñoom ñi leen jiitu ñëpp ba ci Matar Diouf ñoom ñëpp yaa sooro toog Serigne Mountakha ni ko na Nazir Touré Serigne Mountakha ni ko jël naa liggéey bi teg la ci kanam jiital la ci kanam nga jiitu li tax mooy damaa xool ba xam ni mën nga ko sëñ Mountakha ne comme ne mën nga ko mën nga ko mu ne ko mbàkke mu ko damaa xool ba ne mën nga ko moo tax ma jital nga def ko kon yoonu murit xamul góor xamul jigéen jëf rek la xam loola waral yaa sooda mu woo mbooloo mi nga xam ni kenn nattabliwul seen jëf ak seen taalibi ak seen bëgg sëriñ Tuubaa mooy Hizbut Tarqiyyah da ñaatal ñaatal bàyyi attu jan yal na yàlla yokku leeram bàyyi yuusu mi fi nekk mu yàgg fi tànd ak wér mu ne ko yuusu yàgg ñi nga àndal sëriñ yuusu boole naa leen nag soxna sooda ngeen ànd ak moom ci liggéey bi te jàppale ko di ko taxawu boobu ba léegi ñu ànd kook moom saa yi fi sëriñ bi ñëwee toog naa sëriñ ñëw ci moom daal di toog mbooloo mi toog muy wax ma di ko jottaleen moom na Abdoulaat waxal ni sono sooda ak ñi mu àndal am nañ ngërëmal sëñ Tuubaa la ilaha ma wax ko mu dellu wax ni jël na tànkam dugg ci biir kër yaa sooda ca Tuubaa Njaarem mu dugg si daal di teg tànku ndeyjooram na bismillahi rahmaani rahim teg tànku càmmoñam ne alhamdulilahi rabbil alamin dugg daal ne alhamdulilahi rabbil alamin kër gi de méngoo naa kees sëriñ Tuubaa yi kon kees la ci biir kees sëriñ Tuubaa keroog dafay tot ay xéwal sëriñ Muntaxa ak baax gi ak jàmbaar gi ak bëgg sëriñ Tuubaa gi ak nangu gi kookoo jiital yaa soda yàlla na fi yàgg loolu tànd ak wér kon yoo yaa soda nee na bàyyiwul kenn bàyyiwul fenn bàyyul ñenn bés baa ngoog le 20 la ak le 21 septembre le septembre mooy bésub njabootug maam Cheikh Moodu Mbedd waaye ren sëriñ Cheikh Bintou Fall mii xalifab sëñ Moodu Ablaye Fall Ndar dañ ko darajaale comme niñ ko darajaale woon daaw muy woo mboolem Baye Fall yi nga xam ne ñoo aju ci biir kër sëñ Mor Ablaye ak sëñ Ablaye Fall Ndar gépp ñu mën koo teewee fekk ko ànd kook liggéey bi kon mbokk julit yi mbokk taalibe yi képp koo xam ne citoyen nga nekk Sénégal Serigne Touba honneur la pour sénégalais yëpp ndax kat def na fi loo xam ni baat na ba ba ba buf di wa ñuy wal buf bi bufta bi dara mëntu koo dindi kon bés baa ngoog ñëpp teew bàyyi ñu kenn bàyyi ñu fenn Serigne Mountakha yàlla na fi yàgg tànd ak wér te ñu yàgg koo liggéey wasalaamaaleykum wa rahmatullah tabarkàlla euh, wax nga dëgg xam ngeen ni bis la boo xam ne ñëpp ñu ngi ciy bàyyi xel mu doon le vingt ak le 21 septembre waaye xam ngeen ni bis boobu nag day bisu liggéeyal yàlla sëñ Mountakha dégg nga li mu ci wax sëñ Modou Mbaye Samb sikkar euh, jàngal xuraan jàng xasida nee na na ca bare lool waaye nag ajur soodu xuma tabarkalla yàlla yàlla doole la ay xiwal ak i ndam euh, la ma wax bari rek ndax bari na jigéen ñoo xam ne ñoo góor yoon yi amul bu mu dul góor amul bu mu doon jigéen kon sëñ Maam Mor ñi ngi fàttali ko bu baax di ñaanal mboolem kilifa soxna yu jigéen ñi nga teew di ànd ak soxna Sodi xuma ci liggéey bi soxna Bintu Dieng yow xam ngeen tubarkalla liggéey bi kenn du la ca man kenn jiituwu la ci waaye ak mboolem ñu ko àndal nag ci Parcelles Assainies ak Ndakaaru sëñ Maam Mor am na loo xam ne kenn mosu koo laaj ci woon bi origine bateau bi yóbbuwoon Serigne Touba yow loolu laay laaj tey origine bi. asalaamaaleykum. jërëjëf sëñ Ibra jërëjëf intervenant yi fi jaar yëpp muy ci appel beeg lépp ndax suñuy woy juró fi toog sëñ Modou mbay Samb suñ ko tuddee sëñ Moussa Ban ak sëñ Mbaye Ndiaye sànnu si sëñ euh, bal Ñing sëñ Bamba Mbuub ñëpp mat na ñu lay siyaar nag sëñ Ibra Thioune di siyaar sëñ Ablaye Diop Bisri ak ñaari jàmbaari sëñ Touba yi jóg léegi muy sëriñ Saliou ak sëñ Ablaat euh, di siyaar soxna yu baax yi sëñ Ibra origine bato bi man fi ma ko jëlee mooy si Ablaye Dieye mu baax ma yàlla na yàlla dolli leeram ñoom ñoo demoon UNESCO 76. fa lañ jëlee photo sëñ Touba bu njëkk bi ñoo ne leen sëriñ bi la wax nañ ni keroog bi ñu ko defee ci benn serviette laxas ko indil ko sëñ Ablaat sëñ Ablaat bi mu ñëwee bi mu ko xoolee dana leen man de yaruma ndax nekkuma woon ak moom waaye nañ ko yóbbu ci waa magi barsàq yi wax nañ ni ci magi barsàq yooyu ki ci jëkka yem biñ ko ne photo bii la Sëñ Abdu di wax ne nga xool ba xam ku tedd ki la moom dafa xool photo bi rek daal di daanu Sëñ Abdu Lahat leen sikkuwul ne moom la ñoom nag ñoo indaale naissance su bato boobu bato bi waa marine marchande ñoo ko moom waa Brésil ñu tuddee ko ville bu tudd Brésil ca Brésil muy Pernambuco bato boobu ki ko doon dawal mi ngi tudd Rux Rux nee na man je suis un témoin d'histoire parce que bato bi yóbbu Sëñ Tuubaa Rux moo ko dawal mais bi ko dollu aussi moo ko dawal tey mi ngi mel ni comme tey ci kaaru Dakar dem dikk bu ñu amoon benn kaar jox ko ab chauffeur sëñ Ablaye Diop Bichri mii di ko dawal ñu demaat ba yàgg fii ak sept ñu amaat beneen mais du tee lépp rek ci ci ci compagnie bi lay bokk loolu xam naa sëñ Moussa Bane dina dana ko xam ndax léeg-léeg nga yéeg ñu ne diw mii kat at yële oto bii la yoroon waaye bii la yoraat ruux nag nee na yàlla dimbali na ko bato bi yóbbu sëñ bi moo ko dawal muy ville de Pernambouc bi ko delloosi it moo ko dawal muy ville de Massio bato boobu nag ñi ngi ko liggéey 1883 1882 lañ ko liggéey muy at mi sëñ moor Anta Sali làqu bato bi mi ngi suux 1907 mi ngi guddee 94 mètres mi ngi yaatoo 11 mètres virgule 45 moom la bato bi yaatoo bato bi nee nañ zone brute la maaw yaag maaw yi dafa bulo maaw yi dafa weex parce que bi mu dellusi moom la maaw yi bula moom nga dégg sëñ Moussa fa kanaan mu fekk fa manduwaar gu taaru mooy paquet dulo koom gu ñuul biir bi weex maaw yi bulo bokkut ak boobu mais bii maaw yi dafa weex bata boobu nee nañ mille chevaux la mille chevaux gaal googu bi ci sëriñ biy dugg bisu 21 septembre la bisu le 20 le 20 bi sax la ci dugg boo demee ci sëñ Mame Lamine Diop na wax na ne gaal ga ca biir géej ga la gaal yu ndaw yi ñoo ko jëli fi yóbbu ko ga ca biir ca foofa la fanaan ba bës war a xëy déqi parce que boobu sëqaguñu sëqaguñu pooru Dakar moo tax Serigne Moussa Kane Serigne Moussa Kane def ne ñu daldi teeral seeni gaal ca waax ba Cheikh Bamba toggaloo fa Samba laax ba ba mu sottalee la tabbi wil di marinaaw saxaar la moo gën a gaaw ci gaal yi mel nan njanaaw maam bato bu gaaw la ndax boo demee ba ci biir sax ci olofalu sa euh, sañu saaka di nga dégg mu naan keroog la romb waa Indoloos dégg démb maag sëñ Bamba mbub mi ñi ngi ci ñi ngi ci ñi ngi ci kii ñoo ngi koy siyaar baax a baax masin baa rulle ba weesu mandarloos mandarloos nag nee nañ mooy machine machine ñaw yu gaaw yu jëkk yi nga xam ne moo fi amoon moo tax ñu ne machine ba roulé ba weesu mandarloos maanaam gën koo gaaw mu ne nag indarloos ab dun capitaine Blé moo ko teeru ba woo fa Angleterre laa kii tuuru muy English la doon wax kon yor yor la gaal ga teb bi jëm Conakry bisub dibéer noon yaa nga naan ngiri ngiri ca tàkku saani suuf la gaal ga costé dun bu naan tubak marañee konte xanaa xamoo gaal gi yóbbu jëli fii sëñ Tuubaa yóbbuwu ko ba Fran ba ba ba Gabon Côte d'Ivoire li tax mu jaar fa dafa am ku defoon ku amoon ak tubaab bi problème ñu war koo jàpp mu réer ci dëkk bi loolu moo tax sëñ bi def 16 jours yi mu def Côte d'Ivoire escale bi looloo ko waral mais destination du woon Côte d'Ivoire boo demee tey jii ca Côte d'Ivoire boo ñëwee Grand Bassam tribunal ba ba tey kenn changé wu ko foofu lañ jugé waa ji ba war ne nañ ko jël déporté ko ak sëriñ bi biñ ko waree déporté mook sëriñ bi nag ci lañ ci lañ ko dugalaat ci gaal gi mu dem mais sëñ Tuubaa mi ngi wàcc dëkk bu ñuy wax euh, sa central fa la ko gaal gi wàcce grand popo grand popo la ko wàcce foofu la jëlewaat gaal gu tudd tubét tubét moomu nag moo ko jël jaare la ko bene bi mu jógee bene la dem Libreville bi ma jógee bërki démb nga xamante ne boo wàccee foofu rek xam ni fii dëkk bi dëkku rayukaay la woon tubaab yi dañ ko defoon comme abattoir yi nga xam ni na ku fa dugg da ngaa war a faatu gabon doonoon mouroir doonoon deewukaay nga xamante ne tubaab bi dañoo ko jëloon muy euh, dëkk boo xamante ne bu doywaar la mais ñoom seen pexe bu juboon sëñ tubaab du àgg gabon parce que océan Atlantique bi entre Conakry dakaar koo ci tere sa bato ko du julita leer na du faat waxtu xam nga ne sànq ko nga nar waaye bi mu wàccee rek la ne wasixtu bi rabil arsi sil juudi wala fii ma al mustafa wallahu li muxlidun safi dal di wàcc géej gi bi mu wàccee nag julli boo seetee sëñ Ibra li daan am sëñ Tuubaa tey la lan 5 septembre bisu tey bii la jàkkaarloo woon nag la mutee gouverneur président mhm. Kerchan Zile commissaire des colonels chef du service administratif mhm. Boyard lieutenant colonel supérieur des troupes Jourquet directeur de l'intérieur par Clarac, médecin principal chef du service de santé, Ogaré, lieutenant de vaisseau, délégué du commissaire de la marine, Bassiat, conseil privé titulaire, Lamben, conseil privé suppléant, superviseur, secrétaire à service bisu tey bii la woon. fi mu ne nag mu nekkoon jeudi comme tey kon ñun am nañ tawfiix pour waajal màggalu julli géej gi te dana neex dana xumbu barke Cheikh ma Bamba mais sëñ Ibra fi may tëjee. waaw léeg-léeg xam ni. maa ngi siyaar ñi woon. waaw màggal gi chrétiens yi sax dem nan. cam barke borom Tuubaa kenn desul. tiijaan yi xool euh, Tiwaawan fondation Al Amin bu sëñ Abdou Aziz Al Amin moo leen digaloon ne leen murid yi jóge Ndar fii la ñuy jaar jëm Touba wala ñuy jóge dakaar di dévier bu fi kenn jaar te xéwlu ñu defar seeni di ko jox murid yi di participer di wane ne kat lii der bu ñuul moo am ndam kon nag ki mu metti ba muy taxaw di sànni xeer li ko metti xam naa ko gis nga sëñ Ibra fii boo fi desee dibi sax doo ko am gerte caaf sax doo ko am bu màggal jotee. daa gis kuy jaay eh? doo gis kuy jaay lépp a màggal yi yow mi fi des nag sa xol tàng tax ngay sànniwaat mu di ay traak. Eh. noo lay wax na la nun noo ngi sant Serigne Touba asalaamualeykum wa rahmatulah jërëjëf. <laughs> xam nga <laughs> Ablaye Diop Bichri. ndeysaan eh, Mamor Mamor tuuti ma jooy. procès verbal numéro un délibération numéro 16. ndeysaan. sëñ Maam moor wax na dëgg 5 septembre tey la alxames la woon waaye bi ko tubaab bi dee prédicateur de guerre sainte trouble l'ordre public porte atteinte à l'économie du pays, excite la haine entre les sectes. Il doit être déporté en Afrique centrale avec une pension de 50 francs par mois. Procès verbal numéro 1, délibération numéro 16, signé le septembre Serigne bu mag bi ni ko di nga ko miim taxawaay boobee nag ca Ndar di septembre liggéey bu rëy boobu nag Serigne bi liggéeyal ko l'islam la mu jotee der bu ñuul tubaab bi da ko ni maay borom Ndar mu ne ko dootul yàgg man mi borom Touba maay borom Touba 27 ba 45 Cheikh Moustapha al Karim di borom Touba may borom Touba ba 20 45 ba 68 Serigne Fallou Mbacké di borom Touba 68 ba 88 Cheikh Abdoulaye di borom Touba 88 ba borom Touba 90 ba 2017 euh, Cheikh Saliou Mbacké di borom Touba Alaaji Baara di borom Touba 2007 ba 2018 euh, borom Touba cheikh Muntaka mi di borom Touba ana borom Ndar déggatu ko fenn liggéey boobu nag mu liggéey nga wax ni ci biir liggéey boobu bato boobu dugaloon sëriñ bi mu dem ci géej gi diggante Dakar ak Conakry ñaara fa ne ku gëm yàlla ak weddi yàlla bato bi ki ko defar gëmul yàlla bato bi 30 tonnes la Ablaye Bichri der bi matul 7 kilos ma defee ni yàlla du far noonu bàyyi soppeem bi mu jëlee der bi moom 17 kilos mu sànni ko ci ndox mi te gaal gi di 30 tonnes mënta suux soo weddee julli googu xamoo li xew kon taxawaay boobu bu ko taxawee ñu ne le 21 septembre la le 21 septembre xam nga ban bis la ci ONU Nations Unies ñoo déclaré ni 21 septembre moo journée de la paix léegi nag sëriñ bi moom bi ko yàlla dee maay salaam doo ko di noppalul bala ma laa tudd tuddee la dëkk tuddee la doom doo dëkk bi du ma tudd mun daaru salaam doom ji nu mu tudd mu ne Abdou Salaam door wax yàlla yaa salaam moo tax nag jàmm am ci réew mii jàmm am ci jamono ji mu dajeeg Cheikh Mountakha borom mbég mii jëwriñ mbàkk yu daal li mu wax moo di liggéey bu réy bii daal ajaratu soodu xuma jiite ko tamat ko sëkk lanu bëgg nun ñëpp nu àndandoo dem fa taxawu ko ànd ak moom ba liggéey bi jeex ko nag ndakaaru gépp ak li ko wër la tàmbalee yoof ngor ba keroog ngay dem si bukutaan bàyyiwuñu fenn bàyyiwuñu ñenn kon nag ñii di samay doom war a mën a taxaw plateau bi ñoom daal damaa defee ne ren tey nag Ibra tey du plateau de tey booli la ku am sa plate boo ñëwee ñu ñu te ñu ñu sedd la ndax ñii toog kenn ku nekk Serigne Touba jaral na la lu ne màggal gi nag yaa ko wax mais màggal gi sëñ bi dañuy nañ sant yàlla màggal gi yàlla ko moom ni yàlla mën a ñëpp la màggal gi mën a fépp mën a lépp wasalaam euh, jërëjëf soldaaru Serigne Touba xam ngeen mais mais Abdoulaye Diop Bichri julli gi bari woon na coow de xam nga Sénégal euh, euh, kilifa gu mag wax na ko démb rek ni wax ji daa bare waaye sëñ laal li mu dajee rek li mu def kenn def ko julli gii loolu diggante sëñ Tuubaa julli ak waxtu waa man foofu rek laa leen laaj tëggal ma foofu rek. waaw jërëjëf euh, ñu ngi nuyu mbokki jullit yëpp di nuyu mbokki taalibe yi di jiital ci nuyo bi Serigne Mouhamadul Mountakha. alxalifatul am li tariqatil muridiyya yàlla na ko borom bi yàggal lool te dolli ko wér ak kàttan ba naal yi mu sumb yëpp mu àggale ko ak sagoom te làq ci ngërëmu maamam ci anam yëpp te nu ànd kook moom di ñaanal jëwrinam ci Dakar di alaaji Ahmadou Mbàkke yu fay ci taxawaayam waaye nuyu bu baax ajaratu sooda xumma suñu wéejur bu baax woowu nga xam ni taxawaayu góoru yàlla la am ci liggéeyal sëñ Tuubaa ndax liggéey bii bi ko sëñ taxaa di jox wax na sëñ mun taxaa ni ko euh, dama bëggoon am ci ku ma góoral sëñ Muntaxa ni ko sa taxawaay taxawaayu góoru yàlla la ci liggéey bi wéye lépp dina baax ñu xam ci moom bëgg sëñ Tuubaa ba jeex ci tàkk te nanga koo liggéeyal kon ñu ngi koy nuyu di ko ndokkeel bu baax di ko ziyaara di nuyu tam soxna Binta bu baax a baax ak soxna yu tedd yi mu àndal yépp ñu teew ci jataay bi nuyu sunu kilifa yii nag bàyyi Modou mbay sàmb mu baax mi nu ngi koy nuyu ci kàddu yu rafet yi nuyu la alaaji Ibrahima Thioune nuyu sëñ Cheikh Ahmadou Bamba Mbuub ci waxtaan wu fasu wi te neex lool ci Serigne Touba waaye di beral nuyoo Serigne Balla Ñing ak sëñ Moussa Baan euh, di nuyu sëñ Maysa Sey ak sëñ Modou Guèye beral nuyoo sëñ Mamor Mbaye yoonu géej gi ak sëñ Saliou Samb ak sëñ Abdoulahat mi bàyyi léegi beral nuyoo sëñ Lamine Diouf mi nga xam ne nag taxawaayam ñëpp a ko xam taxawaayam ñëpp a ko xam Euh, ci isbu tarqiya waaye ci liggéey sëñ Touba beneen nuyoo nag sëñ mbay Ndiaye sànnoo si surtout alaaji Maajoor Ndiaye ma nga xam ni bi sëriñ Touba di ànd ak sëriñ sànnoo si sëñ Nasir Lo sëñ Cire maamam la fa bàyyi mu batalel ko dëkk ba te ànd ak sëñ Touba sëñ bi ni ko nag lu ne yàlla may na ma ci ay waaye yàlla moo ma xamal ni sëñ Cire benn laa ci am mënuma koo ñàkk daal di ànd ak moom ñu ngi lay siyaar bu baax Ndiaye Ah, mu mel ni kàddu yi fi jib rek doy na sëkk ci fàttaliku xam nga borom burdu defe naa weer wi sax ñu ngi jàng burdu waaw ah, sunu mbokk yu baax yee di ko yëkkati ci fukki bunt yi ca bopp ba rek sëñ Mouhamadul Boucheyri dafa wax fàttaliku te moom ay place lay fàttaliku de ndax jëf ju fa amoon ak ko baax ko fa nekkoon amin tazukuri jiraanin bisi salamin mazaj ta dam an jara min muqlatin bi dami am habbati riihu min tilqaa'i kaasimatin wa aw madal barqu fi zalmaa'i min idami nee na kon a yaxsabu sabb anna al xubba munkatimun maa bayna munsajimin minhu muttarimi daani lawlal hawaa lam turix dama an ala talalin wala arixta li zikril baani wal alami kon ndegam loolu dañ koy fàttaliku waaw ah, te nee na fàttaliku la nga sopp rek a tax ngay fàttaliku ñun ki nu gën a bëgg gën koo sopp mu jaral na lu nekk di Sëriñ Tuubaa mu tàqale ñoo jafe-jafe fàggul nu aljanna ju sax defal nu barki bu ñu mënta jeexal libéré jullit ñëpp libéré jaam ñëpp dimbali nit ku ñuul di sakk ci nun di yaakaar ci nun bëggunu ko dut moom kon la mu taxawoon def ko ngir yëkkati julli ak yëkkati lislaam suñ tàbbee ci weer wi nga xam ni mën nañ ko sunu yitte yi sunu ruu yi sunu xol yi war na faa dem lii rek moo tax ñuy fàttaliku julli googu nag bari ay contestation yu bari ndax loolu yàgg na fi ndax yenant bi sax am na ñu koy weddi waxuma la sëñ bi yàlla moo ni ko wasbir ala ma yaquluun deel muñ ci ñi wax ci yow bu leen faale wahjurhum hajran jamila wazarni wal bii mukaththibina uli naamati nga bàyyi ma ñoom ma lijjanti leen kon faawu sëñ Tuuba am ñuy taxaw di weddi mbiram waaye li wér wóor mooy julli ci géej gi doy na karaamu sëñ Tuuba kenn mësu ko def moo ko def benn Mauritanien da koo wax dani xawaariquhu yakfiika à rujuuhu ala xayri xaalin baada ma rakibal bahra benn Mauritanie nee na sëñ Touba buñ daje woon rek waxuñu sax sa jaloore yëpp ñu jël ci benn rek war ci kaw gaal gi tàbbi ci géej gi wéet say noon wàccaat ci ngën gi forme dara loru la dara yàqalu la ñëwaat di woote la ngay woote doy na tagg la yow nee na ko xawaariquhu yakfiika minha rujuuhu ala xayri xaalin baadama rakibal bahra sëriñ Tuuba waxal boppam ni dañ maa sànni ci géej gi moo ko bind moo ni fa man yulqinii fil bahri raw man li xurbati fa lii min ilaahi raw du fi kulli aylami moo wax ni fa man yulqinii fil bahri lil jëhdi zaqilan faqad jaa nii fil bahri joodul mukarimi yooyu yëpp day firndeel julli gi sëñ Tuubaa nee na ñi ma sànni woon ci biir géej gi ngir bëgg sama tumarankeeg sama loru xamuñu woon ne yàlla fépp la ma tàggatal fuñ ma sànni yàlla aar ma loolu day fi ne sànni nañ ko ci géej gi mu dellu wax ne ñi ma sànni woon ci géej gi ngir bañ ma ak iñaane ma bëgg a yàq sama liggéey xamuñu ni tabu sama borom gi fu ma dem mu fekk ma fa fekk na ma ci biir géej gi loolu firnde la moo yar sëñ Mawlaaye Bousso yar sëñ moodu Xari Bousso sëñ Modou Xari Bousso man mii di wax am naa fukki waxtaanam ak ñeent sama bëtama may maa jàng kenn nettaliw ma maa am fukki waxtaanam ak ñeent yoo xam ne nee na njaarim ko séqeeg sëriñ Touba sëriñ bee ko tegal warga attaaya ci loxoom bu tedd ba di ko xeli na kaay ma wax la fi ma jaaroon moo ko nettali julli ga sëriñ Mawlaay Bousso ni nettali na ma ko moo tax ma bind ko mbokk mi wax léegi wax na ko wa fil yam mi sàllal asra yajri bi jildihi maal fulki yabdo raaki an xayra sajidi loolu bindam la sëñ Tuubaa tàkkusaan la julli waaye dafa jam u taqdim dafa boole tisbaar jeek tàkkusaan ji julli ko ci géej gi ba mu fa mu ngi jullee ci diggante Sénégal ak Guinée Conakry loolu abysse la moom mooy profondeur maritime ci la sëñ Tuubaa sànni deram ngir wéttali ko yàlla ak wéetal ko ak xam ni jaam bu weddi yàlla mënta wax diggab ak digalu yàlla mu sànni der bi cëppeelu ci nee na bi muy wàcc amul yaqin ci ne dina ko téyam déet waaye daa wóolu yàlla xam ne du faatu waxtam bu ko fa bakkanam di desit jaral na ko sunu boroom téye ko lu kenn mësta def kon loolu lañuy fàttaliku loolu dara gënu koo rëy moo tax murit bu xam boppam bis boobu dafaa war a teew teewal fa jëmmam ak ruwam ndax amuñu bis bu gën a rëy sëñ baa libéré ñëpp ci julli ñu ngi ñaanal kon soxna sooda xumma bu baax di ñaanal waa kuréel gi yëpp di ñaanal sëñ Muntaxa yàlla nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm mhm. bis baa ngoog mu ngi sunu kanam ñu ngi woo jullit yëpp di woo taalibe yëpp ñu waajal le 21 septembre. jërëjëf sëñ Abdoulaye Diop Bichri ci kàddu yu am solo yooyu euh, nga wax ci sëriñ Touba ak julli tabarkal ak ñi fi jot waxee ñëpp ñu ngi leen ndokkee di leen siyaare di ñaanalat ajarat soodu xuma mi nga xam tubarkal la nee naa jàmbaari jigéen a ngoog ju mën góor na ko ñëpp bàyyi xel te ñaanal ko góor baax na jigéen baax na te lislaam taxawaay jigéen da ci am solo. soodu xuma xam ngeen taxam rafet na waaye ñu ngi woo mbooleem kuréelu maam jaar yi nekk région de Cap-Vert kenn ku ne fa nga daan dal fa nga daan ne ci wàllu réunion yi xam nga ko waaye kii tëj kàddu yi rek mooy Serigne Cheikh Bamba Mbuub mi nga xam tuwaat kàlla moom ci comité organisation ci communication ma jox ko ma wax juróomi muñ rek incha allah mu ci bis bi lancé waat appel ñu soog a tëj jotaay bi. alhamdulilahi allazi hadana li haza wa ma kunna li nahtadiya lawla an hadana allah Euh, sëriñ Ibra kàddu yi fi jóg yëpp dafa nekk kàddu yu xam ne dañoo mat sëkk ba daanaka samay wax sax du bari lool di nuyu rek xanaa soxna Soda Xuma mi nga xam ne nii moom la sëriñ Muntaxa jox ndigalul julli géej gi le 21 septembre di nuyu bu baax sëriñ Mbàkke yu mi nga xam ni moom la sëriñ bi teg fii ci kanam murit yi fii ci ndakaaru ak li ko wër di nuyu nag bu baax a baax sëriñ Modou Mbaye Samb mii nga xam ne sunu jëwriñ la sunu lépp la waaye julli géej gi dafa nekk lu singulier ndax sëñ Ibra yàlla maye na yàlla maye na salaatu jàmme maye na bu xiinee bu nu jullee timis boole ko geete dem ngir bañ a tooy waa xoolal kii nga xam ne nag lab jaral na ko ko waaw lab moom jaral na ko ko pap ñii moom yàlla may na leen bu nu jullee timis mu xiin comme nii nu demel nii nan boole timis ak gée te dem ngir nu bañ a tooy kii nag moom lab jaral ko mu cëppeelu ci kaw ndox mi man nii fil raw man li xurbati fa saadani min al ila ay turbati que celui qui me jette très loin dans l'océan en vue de me perdre sache que Dieu m'a subjugué tout l'univers man yàlla moo ma géej gi yàlla moo ma yaral cosmos bi yàlla moo ma yaral lépp luy yëngu ci géej gi saqi lii haazal bahra wa ahlahu jamian dara desul lépp la yàlla yar bi sëriñ bi taxawee ci kaw géej gi fa saaral juldu yasri fi sayri safina géej gi ak bato bi dañoo tolloo vitesse noonu la ko bindee noonu ko sëñ mu laay waxee sëriñ boobu nag nga xam ne julli gi c'est singulier dootoo dégg ku ko wax léegi la ko euh, sëriñ Saliou sàmm wax waane naar ba dañu ko bëgg am maqaama xadimu rasul ku bëgg am mayami ku bëgg am li mu yor ne kaay dem ci géej gi yaa man yu awilu shawa cheikhi inna lahu sha'lun yafutul wara idraki mitmaari fa ka xidmatihi wa xit ka xidmatihi xawbaka awbatihi taxus bi rummatihi ma shura ashaarihi waayid alhaadi min noxma wa samilatan turan lil xalqi abidahu wa aqraawu mu ne yow mi bëgg yow mi bëgg am mayam yi kaay dem ci géej gi waay nee te bu fa faatu nag te bul dee bul jooy ne te na nga si nag te na nga def la mu def waaye na nga wax la mu wax waaye na nga ñibbisi nag te bul jooy bul perte waaye boo ko defoon sax du tax nga am genn wàllug la mu fa jëlee ndax moom moo jëkk dem ci géej gi moom moom droit d'auteur bi li ma leen di wax daal mooy way ragal yàlla ya way xam ya yàlla woy bëgg ya yàlla d'accord nañ ni xaadimu rasul kenn rek la ni julli géej gi nekke benn rek ñu teg ko ci loxo soxna Sooda Xuma muy koo xam ne nii sëñ Muntaxa ko jiital mu ànd ko ak sëriñ Yuusu Juub bu is bu tarxiya xam ngeen ni xaadimu rasul rek mooy kii xutba géej gi waaw daf ni ceerno bi ma jullee ci géej gi def naa ñett yu niroog ñett waaw maam ceerno ko mbàkke boo nu ci dimbalee nu jël mu ni ko bi ma loo ci géej gi def naa luy nuroog def naa luy nuroog aw fit maam Thierno ne ko loolu amagulu tur lu bees la luy soog a xew aw fit yàgg na fi te nit yeegul foofu mu ni ko Thierno bi ma sëppee sama jëbi sama jëbi taq suuf Thierno def naa luy nuroog ki xar baax mu ni ko mbàkke loolu xotti na baax amagulu tur itam loolu it amagulu tur lu bees la kenn mësu ko dégg mu ne ko na bi ma jullee ba noppi lemaat der bi dellu ci géej gi dellu ci sama noon ya def naa luy nuroo ngor mu ne ko ngor yàgg na fi te taxul nga delloo sa bopp say noon li nga def yëpp ñett yooyu benn amul gu ciwtu loolu lu bees la xam ngeen ni temps bi dafa empressé wu <laughs> waaye sëñ Ibra daal jërëjëf eh, sëriñ bi daal yaa man yu aw wilu jooji ko naar bi wax eh. ba addunay tukki doo dégg ku ko feelu doo dégg ko ni maa ngi dem asalaamaaleykum wa rahmatullah Euh, jërëjëf waay sëriñ Cheikh Bamba Mboup tubarkalla plateau bi den may signal li ma bi jeex na léegi waaye tubarkalla ñi ngi santaat ñëpp lancer encole un appel sëriñ bi asamaan la kenn dul sa morom dandul ma xool lu nit ñi bare bare bare nañu bàyyi xel ni euh, def nañu CRD avec le gouverneur de la région ci ndigalu ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine waaye nag mu jëlee ko ci ay kilifam le président de la République monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre le chef du gouvernement ak mboolem autorités yi nga xam ne jot nañu ndigal ci événement bi ñu war ko couvrir kon sur le plan sécuritaire ñun ñëpp bàyyi xel ni dana am sécurité bu doy ñëpp dañ fa daje waaye ti tubaarkàlla na ñëpp bàyyi xel seen bopp di ñaan nag Serigne Mountakha Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér noonu la ñuy siyaare bu baax a baax ajarul soo du xuma waaye di siyaare bu baax encore une fois suñu jëwriñ Serigne Youssou Diop is bu tarxee mu ni sëriñ bi boole tubarkalla mu nuy xel liggéeyal waaye di siyaare baax nag sëñ tubarkalla mboolem is bu yi tubarkalla encadrement bi depuis bi ñu tàmbali liggéey ba léegi kon sëñ Lamine ñu ngi leen nuyu baax nga jutal si nuyoo waa fédération bi yëpp ak mboolem fu ak mboolem fu taaliba ne waaye ndakaaru daal ñun ñëpp le 20 ak le 20 septembre la ñu xam ni jàmm lay la ñuy jëm ca euh, ju fàttaliku julli géej gi bi Cheikh Serigne Touba defoon ci géej gi kon nag ñee ñu ngi ñaan ñëpp yàlla fa leen jàmm may nu jàmm te nu fekk ko jàmm kenn bañ a ci daraje rasulillah ak weer wu ni tappi asilu ma labari hina asilu